Sall sonn nañu de jàppale ñu ngir yàlla ñu am tali sonn nañu bala ñuy liggéey dañuy sonn suñu jëkkër yi bu ñu xëyee dox bala ñuy àgg fa ñuy liggéey du ñu am dara du am dara ndax day fekk liggéey dafa passé ay maçon doo fi ne ay menuisier bala ñuy xëy du ñu am dara ndax bu tawee nag amul kenn ku fi mën a ñëw jigéen ñi bu tawee du ñu génn am na ci ñoo xam ne sax du ñu togg añ ndax dañuy xëy liggéey yi a ñëw am la ñu togg añ. ñoo dajaloo fii pour jooytu jooytu loo xam ne yàgg nañ koo jooy 1996 ba ñu Serigne Saliou daggalee saam gi ñu sanc ko ba léegi mu mel ne dañoo bokk ci dëkk bi wala dañ ñoo fàtte wala boog géographiquement dañoo bokk Touba bu dee ne dañoo bokk Touba ci géographiquement ñu xam ko waaye dañoo gis ne lépp loo xam ne jëm si na Touba ñu koy séddale Bokatoul Mbarak dañ leen ciy fàtte dañuy des gannaaw bi bi tax ñu génn tey ji dafa am 26 kilomètres yoo xam ne ñëpp gis nañ ko dañ ko joxe Touba ñu war koo tali ñu gis ne 26 kilomètres yooyu biñ ko joxee ñu war koo tali dañ ko jël dugal ko ci biir corniche bu njëkk bi mu nekk loo xam ne dañoo xaw a euh, euh, bett lool fii nga taxaw di wax ak ba ngay génn dëkk bi mën na sept mën mën na cinq kilomètres fii ba ba ngay dem jumaa ja mën na sept kilomètres te lu mel noonu dafa bari Touba te ñoo gis ne chantier yi dañ koy def koo xam ne amul priorité am na télé yoo xam ne dafa ñëw bu jum ñu dévié ñu dem feneen loolu il faut ñu wax leer ngir yàlla ñoo ngi koy ñaan ñi nga xam ne ñoo yor chantier yi di dogal fi fii ci Touba nañ ñu bàyyi xel waxoon nañ ñu doon nañ ci indi waaye cette fois ci dañoo sonn te fii tam kenn mënu leen ci ak taalibe bu dee liggéeyal Serigne Touba ñoo cay jiitu bu dee xollim gerte ko sa gerte saam nga koy indi ñoo koy njëkk a xolli lépp lu ñuy woote liggéeyal Serigne Touba saam ñoo ciy jiitu te Serigne Touba dañoo naf si wadi nii suma un lii te ñun nag ci njabootu Serigne Touba lañ bokk kenn mënta ci njabootu Serigne Touba génnuñ parce que ay taalibe lañ ay murid lañ ci dëkk bi lañ juddoo ñu ci bari fii lañ juddoo kon nag ñoo ngi ñaan li leexee war a sool yi waaye dañoo sonn ñoo ngi ñaan ngir yàlla te li yi nga xam ne ñu ngi koy séddale nañ ñu ci may ngir yàlla ñu am yoon woo xam ne danañ ci mën a jaar ba julli ci jumaay Serigne Touba ji lii ñuy wax nag du doon ñàkk suñu taalibe dara doxulu ñàkk sonn dañuy bëgg a dee dañuy bëgg a dee danoo sonn danoo sonn suñu jabar yi sonn nañu suñu doom yi sonn nañu amuñu courant bu ñu taal xale yi bu ñu bu ñu feebaree boo jëlee taxi xaaju guddi doo am foo jaar bu tawee jigéen ñi accouché doo am foo leen jaarale pour nga mën a dem kon jàpp naa ne 26 kilomètres bu ñu ko fi dugalee ci loolu ab tali yaakaar naa ne war nañ cee mën a bàyyi bu xotal mu baraka ci Touba lañ dëkk te fi ñu dëkk sori na lool te ñun ñëw nañu lix ñëw nañu dara yoon woo xam ne dañ mën a jëli fii ci marché bi dem ba marché ndigal maa dem ba mbaar ya ñun loolu rek lañuy la ñuy ñaan ñoo ngi koy ñaan xam nañ ne fii Touba la bu ñu kenn wax amuñu taalibe am nañu taalibe ay murid lañ ci dëkk bi lañ juddoo waaye nag wax dëgg yàlla nit ku ne bala nga dee da nga wéq dañoo sonn fii bu nawet jotee dañoo coupé ak Touba bu nawet jotee pour nga jóge fii dem Madiana gii rek da nga fay 1000 francs ñeenti nit ñooy bokkaate tax si fay mille do ko dem